jamono yi dégg nañ ci ay journal yu bind di wax ci sëriñ Bachirou Mbacké Abdou Khadre dafa am loo xam ne ku ko def ku ne bul defee ni nit ñi dañ wax rek ñu ànd ak yow wala ñu liggéey loolu la nga def ko déedéet sëriñ Bas bu du woon doomi sëriñ Abdou Khadre sax du sëtub sëriñ Touba sax de porte parole sax ab Sénégal la léegi boo ko tegee mu dib Sénégalais nee ki doon bind ci journal bi ba ni jox nañ chef religieux jox ministre yi moom moom mu doon bind ñaata hectare lañ ko jox ca Mbambilor sama tur yi may jàng alxuraan ak xasaayit bugguma ko cee tudd sax moom mi bind loolu laal wax moom ñaata hectare lañ ko jox ndax moom day sénégalais sëñ sëñ Bass moom di beneen nationalité lii jox nañ mbëri làmb yi jox nañ musiciens yi jox nañ ay jigéen homme d'affaires jox nañ étranger yi gën a yéeme nag moom coow lii li ko waral <coughs> euh, sale boulot la sale boulot Barthélemy jaas loolu mu wax ci littoral bi congolais bi nga xam ne du sénégalais ñu jox ko ci suuf si lu bari may ko ko ci wetu géej gi bañ ko solee ñu xam ne lii bu jógee mën naa jur musiba ci àdduna scandale bu mel nii moom kenn du ci lañ jëlee wax ja nag bëgg koo muur ñëw sulli bu sëñ bas ndax jox nañ ko ko ak joxuñu ko bi ma ko journaliste bi laajee dama ne ko yàllante woon ñu jox ko ko yàllante woon jox ko sañ Bass am na groupe de presse bu ñu fi jox fii ci Dakar gii sauf su dul jeex mu jaay koy milliard waaw am na groupe de presse ku yëngu groupe de presse boo xam ne may lañ leen suuf ci Dakar ñu jaay ko mairie Dakar ay milliards waaw am na benn nit boo xam ne la muy jàngale léegi tey jii Sénégal da koy xeex muy terrorisme may nañ koy hectare ci Diamniadio la mu fa bëgg a def loolu fa mu soqi ko la jàngale may nañ ko hectare jam ñaaju <coughs> waa léegi ba tey man la Cheikh Bass yàllante woon ñu may ko laa wax man nekkuma naan def nañ ko defuñu ko dama ne même bu ñu ko defee lii ca jamonoy mi ngi tàmbale woon ca jamonoy tubaab ya question de régime la xoolal suñu bokk yi nga xam ne bokkuñu diine ñaata lañ leen daggal fii ci biir réew mi ci biir Ndakaaru ñaata lañ leen dagal ci biir Dakar demal nga xool am na ko fi ma sa wax ñaata lañ yor ci ci biir Dakar ci suuf ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ay chef religieux ay politiciens maanaam lu tax ñu lu tax moo ñu kooku site boobu ñuy wax ni moo gëstu ba génnee Cheikh bas site ba chaine la chaîne benn chaine u sale la maanaam pour camoufler lañ may congolais ba ngir sénégal yi ba ñu fépp mer di di di révolter ñoom ñëpp tax ñu wëlbati ko xëpp ñu Cheikh Bass bu kenn weddi ni may nañ ko sax waaye dama leen laaj ndax dafa amul àq ci ñu may ko laajaat ñaata Sénégal lañ fi may suuf Daaru Xuddus gi ci Mboro ñaata yéen ngeen ñu jox réew mi yëpp dagg dañ ko jox ko étranger indien yi ñu jox ñuy bay pomme de terre foo dugg ci Sénégal boo demee Sali Portugal foo dem jox nañ ko étranger yi waaye waaye ñi jox ñëpp laay laaj ndax man nga cee nattale Seex bas kenn lu mu bon bon bon bon am na ñaari daara yoo xam ni wala ñetti daara yoo xam ni juróomi téeméeri xale danañ fa jàng alxuraan danañ fa jàng njub danañ fa jàng jaamu yàlla danañ fa jàng liggéey ñeneen ñi jox téer ba ca Senghor ba léegi question de régime la PS PDS APR ñëpp mbirum régime la li amoon kay mooy ñu ni bis ki tey kenn dootu mayati kenn dara mboolem kuñ mayoon ko jeex na tey wala kuñ mayoon luñ la mayoon te loolu état mën na ko na ngeen def ndànk de nit jàpp na ne am na suuf fi mu toll nii Sénégal depuis vingt ans lañ ko mayoon na ko wér ni bis bu régime patriote ñëwee dëgg dëgg dëgg ba bëgg liggéey réew mi loolee mën nañ koo dindi ni ñu dindee contrat wu Senelec ak Akilee ab état mooy état bu doon benn at ak ñetti at état bu mu doon bu ñëwee liñ même buñ la mayoon waxuma may sax waaye Cheikh Bass dañ koo may yow kay bala ngaa wax ni seex Bass dara demal nga wax la donateur bénéficiaire bi moom léegi ba ki nga xam dañ koo may ki ko ko may ngay dem laaj ni ko ndax li nga war war nga ko may ndax ki ko may war nga ko may. da ngay laaj ki ki koy joxe moom nga xam mooy ndax loi may na ko mu maye loolu moom bu ko loi maye nga ne ko ndax lii fii nga maye sañ nga ko may demal aéroport bu bees bu màggat be dem leen fa bu mbir yëpp leere dina leer na ngeen seet aéroport ba la tàmbalee ca yoof ba ñëw ci sagi catholique yi lijjanti leen ngeen xam fu ko moom fo kan moom moom loolu yëpp waaw la tàmbalee ca yoof di tefes ñëw ba ci sëgi sëgi sëgi sëgi catholique yi foofu ci kër Cœur jàll noonu loolu sës ci aéroport lijjanti leen ko nañ gëstu ba xam ndax militaire ya la ñu bàyyi aéroport ñu moom ko wala dañ leen faa teg rek ngir leneen nañ lijjanti loolu yëpp nañ lijjanti loolu yëpp sëñ bi yoon wi nag duñ nangu jàpp nit bëgg koo diaboliser rawatina koo xam ni am na lu muy symboliser ci ci ci domaine bii nuy wax nii bëggoon a muur miir nag tax ñu jël tur Cheikh Bass xam ne bu ñu yëkkatee Cheikh Bass adduna sëpp daal di jug ñu Cheikh Bass Cheikh Bass mais Cheikh Bass moo ko yeneen Sénégal yëpp la wax waxuma Seydou Khadre waxuma dama leen ne ab citoyen simple ñaata citoyen lañ fi may e hectare wax naa leen ko léegi ba ci borom journal boobu bindoon loolu dégg ngeen lañ ko lañ ko may ca Mbambilor waa Mbambilor yi fa juddoo am fa seen cosaan dëkk Mbambilor ndax am na ci ci am ñaari hectare ñoom foofu cinq mille mètres carrés am na ci ku ci am moom fan la juddoo fan la jógee ba ñëw Mbambilor ñu jël suufu Mbambilor may ko moom te bu ma daqee li ma doon wax naan Cheikh Bass sa déedéet bu ma ko dàqee du n'importe kii te lañ koy jox loo mën a wax itam wér na ni yow mën ngaa waat ci alxuraan ni am na loo xam ne bu doon téeméeri wala junni xale it danañ danañ nekk daara di ma ko alxuraan ñu leen dundal ca loola. sëñ bi nañ dellu ci lu ñu wax mbirum régime la tubaab yi def nañ ko fi PS def na ko fi. tey man li ma bëggoon mooy bala ñoo laaj ki ñu may nañ lañ laaj ñi sàcc passeport diplomatique yi ñu fi doon wax anam bateau yi nga xam ne xawoon na fa ci jamono yàgg yi bato yooyu passeport chinois ya bateau yooyu mbirum pêche ba ak yeneen yeneen caisse de précaution dama koy wax mu leer ba fi Senghor nekkee ba léegi du ñëpp de mënu ma ni joxuñu ma kenn tuumaalu ma kenn dama ne bu dee téeméer ñoo doon liggéey ci gouvernement bi quatre-vingt-cinq yëpp pour cent kenn ku ci nekk yaa ngi alal ju lewul joo xam ne du sa salaire bi ñu doon fay la yaa ngi alal joo xam ne ci ñaqu Sénégalais yi nga ko jëlee denc ko te Senghor ba léegi nag laa la wax politique seeg ñooy lëkkaloo politique ñëpp kenn ku ci nekk yaa ngi yor nit ñi teg nañ seen faale wuñ ko sax mais kenn ku ci nekk yaa ngi alal joo xam ne ñaqu Sénégalais yi nga yor du salaire boo liggéey ñu fay la ko kon kay bala ñoo wax léegi mbirum koo xam dañ ko koo may ni ko am ñu may la nañ wax ci mbir ñoo xam dañ ko luubal ñi fi jaar ñëpp nañu wax ci ñi nga xam ne koo luubal bala ngaa wax ci ki ñu may waxal ci kii luubal ba noppi ana ay Prodac ana ay nangam ak i dëkk bi tout scandale sur scandale kii nag moom néew néewoo da koo luubal da nga ne dañ ko koo may waaye dama wax donateur bi ni ko yow lu tax nga may may ko li wala boog nga génne tur yëpp boog boo génnee Cheikh Bass nga génne mille cinq cent personnes wala trois mille personnes yoo xam ne kenn ku nekk am nga loolu politicien chef religieux musicien lutteur ñëpp génne liste bi ñëpp nga génne ko bu boobaa amul problème waaye nga ne coppet kenn ciblé ko suñ bi réew mi bisa ngi ñëw boo xam ne yii yëpp ab régime de masa ñëw kaase lii lépp mbir mi nekkul ci ki nee na la PS PDS après bu ñëpp li koy dindi ab régime koy dindi régime ko ndax saa yoo amee yaakaar rek loola koo dindi ab régime bu bu ko gëm mooy mën a dem ba lii lépp mu dakk benn yoon waaw lépp tege ci yoon senegal yi mën koo jariñoo bokk te te wunduwul nag ni ku ñu war a may dara duñ la ko may ndax fépp fu ñu gis suuf soo xam nit ki bu ko waree may mu jariñoo ko mu ñu teg ko ci yoon may bokkul ak luubal kii dañ ne dañ ko ko may nekku ba sax dinaan dañ am na ak amul man waxuma loolu dama ne même bu amee am na ci droit demal nga laaj ki nga xam ne moo ko doon joxe. am na ñeneen ñoo xam ne ci xeeti domaine ci biir réew mi li ñu luubal ci ci xeeti luubal ci réew mi ci ci ci état beeg lépp luubal yoo xam ne nee naa luubal sàcc la moom ay sàcc ay luubal kii ne dañ koo may te bu doon moom rek man d'accord naa du ma yëkkati sama baat waaye loo xam ne mat nañ lu mu bon bon 3000 personnes ñett junni nit yoo xam ne ci biir réew mi kenn ku nekk yaa ngi kenn xamuñu toll ñii ci wetu géej gi ñii ci sali Portugal ñii tan kenn ku ne yaa ngi loo xam ne yaa ngi ci góof toog ci ngeen bëgg jël nag koo xam ne parce que symboliser porte-parole du mouridisme bëgg ko diaboliser comme ça noonu lii moom tey laa ci ci guleet moom sax lii tey il faut mu wax ci lii ba tey léegi mooy li xew ci li ma doon wax ci mbirum sant bi wax naa leen ko vaccin yi ñuy wax gis ngeen ni jamono yi def déconfinement bàyyi nit ñu génn bi nit ñi demee ba ba naj ba mënut a ba mënut a nooy ci lañ wax mbirum vaccin yi ñu potoxlu ci nag wane ni vaccin yi kon dañ koy valider sant Gavi gërëm ko wax ko lépp muy ñi nga xam ne ñoom ñooy defal vaccin yi. Sénégal yi maanaam su dafa am loo xam waxoon naa leen ko ci ginnaaw dem leen ngeen seet sàq yi ci ginnaaw nee leen suñu demee ba dara xew rek booba li nuy coow noonu di ko naqarloo def ko benn waxtaan ñëpp di ko waxtaane fekk na am na leen lu ñuy ràbb ci suuf bàyyi nag loolu nag noonu waxtaan ñuy ràbb leneen nag ñu nekk ci loolu ba loolu kii nag mooy li ma leen wax nii léegi ci vaccin yooyu kenn ku ci nekk boo jàngul immigré yeeg ñi fi nekk ñëpp ku ci jàngul sa soxna ak sa njaboot bala ngaa génn sa kër waxtu wu ne nee leen ku fi ñëw di leen def loo dara woo leen ma téléphone wala ngeen dem seen nijaay wala seen diw sàngam ngeen laaj ko ba xam bu leen nangu kenn di jëflanteeg yéen lan te lu ma yëgul ku ko deful nag ku nekk yaa moom sa njaboot loolu neex a defal fan yii rek Tuubaa gii ñëw nañ fi kuréel goo xam dañuy wuyoo ci turu diine nee nañ dañooy ñëw ngir lan jàngal nit ñi maanaam ngir avortu avortement médical médicalisé ak itam wàññi njur mi déedéet dakkal njur mi lañ bëgg loolu nag dañ ci dellu si bu soobee dinañ ci si ba mu gën a yaatu Touba moom xubu fenn waaye bala fee kenn ndax kenn maa ngi koy bàyyi loo xel yéen waa Touba kenn ku ci nekk nay déglu information bu soobee yàlla bu nu yàlla bay dimbalee balaa yàgg léegi yooyu yëpp dana jeex incha allah rabbi yooyu yëpp dana jeex dara dootuñu bàyyi nit ñi di di leen di ko nëbb nit ñi ba noppi di di di ci lor doomu aadama li ma doon wax daal ci wàllu woowu mooy nii leen Cheikh bas lii ñuy wax di ko di ko wax. li ma ci gën a métti nag mooy am na ñoo xam ne du métti sax am na ñoo xam ne jaare nañ ci ba noppi di tuddoo ci yoon yi ba noppi waroon koo waxee neneen waroon koo défendre neneen ñu jël ko yóbbu ko foo xamante ne bi jotewul ak loola dara suuf yéen ñi xam Sénégal nee naa leen ca Senghor ba léegi bañ fi tàmbalee maye suuf wax naa ko groupe de presse bu nekk ci Sénégal gi ay groupe rek ay ñan may nañ leen suuf su dul jeex ñu jaay ko ay milliards jaay ko mairie Dakar du tax wax ci ba léegi ak ñeneen ak ñeneen ak ay nit ñoo xam ne kenn xamagu leen kenn déggu leen boo demee domaine fay ji da nga fa fekk ay tur ñenn ñu ne ay promoteur immobilier lañ dañuy yëngu ci wàllu tabax nangam ñu ji xëy xëy rek nag samki du demee noonu ñun yoon wii mënu leen noo yëngal saye boo bruit bi na bari internet bi direct yi lépp journaux yi nañ bind mais nu some très sereins très sereins Serigne Touba jàngal nañu lépp nous très sereins ndànk ndànk ndànk baj baj leen ba jungut leen bind leen wax leen tout non bu nu bu nu melul nii rek kon kon kon kon kon li nu bi jàng mokkaloon ko lépp ci géej gi rek lay tuur dara waaw leen rek laay waxtaan wi mooy hadis yi nga xamante ni bii man dama koo jàng ci bi sallallahu alayhi di ko jéem a jëfandikoo sama képp man raa minkum munkaran ku gis loo xam ne jaaduwul na nga jël jaasi yat xeex ko mu deñ soo ko munul nanga ko wax ci sa làmmiñ nit ñi dégg ko ndax mu deñ ñu taxaw ci soo ko mënul na nga ko naqaree soxal man nag xadis yonent bi ma di ko jëfee yow nga bëgg léegi beneen waaye toog fale di murit wala di jul ah sëñ bi nag yooyu man nga cee bañ a dugg man ngaa yem sëñ bi rek nanga nang man génnuma sëñ bi di sëñ bi daa bëgg ku ubbi bopp nit ñi daa bëgg nit ñi xam fi ñoo teg seen tànk man génnuma sëñ bi am da ngaa bëgg léegi moom mu jàng xadis yi mu solo ci deuxième république troisième république quatrième république solo ko ci Napoléon ah, Mitterrand solo ko ci Jacques Chirac Jacques Chirac soloo ko ci euh, Sarkozy Sarkozy soloo ko ci Mitterrand mu soloo ko ci Macron soloo ko ci ñoom ñëw di la ko jàngal ñoom ñu ko appliqué man du ma appliqué hadis yonent bi pour lan ñoom ñuy appliqué hadis yi deuxième ñoom ñoo ko soloo man nga bëgg li Mouhamad wax man du ma ko solo du ma ko du ma ko appliqué man te tuuti rek bërgi ni Macron mi nga xam ne mokkal na hadis yi yëpp yëfi Mitterrand bàyyi yeeg euh, mu naan na bis bu ne indi la benn hadis nga ne ma xadis boobu naa koy dégg di ko jëfandikoo te man du ma jëfandikoo xadisu Muhammad ak ka ko doon liggéey xaadim rasul nga sa bopp du demee noonu wallahi dinañ waxtaan ak ñi la lépp woon na waaw ubbi leen seen bopp yi mun noo dëkk nag ci di wax ku bëgg a jariñoo la ñu wax waaye koo xam bëgg ñu tàpp la taret demal ñu la taret kooku moom yaa xam ku boo bëggee ñu tàpp yoon niwu ci ku bëgg a dégg nag nan ànd liggéey te xam ne réew mi dafa war a am fu mu tegi dafa war a am fu mu jëm mais diabolisation bi ak lii yoonu murid da ngeen di sonn rek maanaam sal buloog leneen nag di wax ba dara lii yokk dong la ñu jural dong la ñu jural bu fekkoon nag am na loo xam ne dafa am te du dëgg bu boobaa nii lay taxaw wax ko ak ku mën a doon du ma ci ànd ak moom waaye lii ngeen bëgg a def nii Cheikh Bass Abdou Khadre nga xam ni tey am nañu ko gën a démérité ñu wëlbati ko jox leen ko ba pare ñu taxaw kenn ku naan Cheikh Bass Cheikh loolu moo tegul fen tegul fenn dañoo koy def ñëpp xam ne li sal buloog la rek mercenaire de la plume mercenaire man nag li ma leen di wax nag bu waxee ci sëñ bi ba wax leen fi ñu war a teg suñu tànk nan dem ba ci kanam incha allah waaw jërë jëf jërë ngeen jëf noo ngi leen di balaax leen baloox jërë ngeen jëf